lu yàlla nam war na lu jot yomb lu nekk nam ak lu yàlla nam bu mbokkee daje nam namu yàlla mooy nam namme seen émission bu ñëpp di xaar saa su ne tontu bataaxal ngeen ante kan seen ustaas Guédé ak histoire su nga xam ne ndeysaan fu mu jàngee tarkalla macha allah romb na ancien atlantique nee naa mu xam-xamam universel la foo ko laal am na si xam-xam balaa maa ñëw moom si benn baat wala ma koy laaj lenn dama koy bàyyi mu nuyoo ustaas Guédé Eh, maa ngi lay fay. te damaa ñëw ak fël-fëlaale. sànneeku def li la saf <laughs> maa ngi am mbégte. Mm-hmm. ak kontante. Mm-hmm. Eh, di kontaan ci internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp. Mm-hmm. Eh, di la gërëm Guédé. vraiment di am kontante boo xam ne patambëf la. ngeen jàkkaarloog oustaz bi nga xam ni. ñi ko sut ci xam-xam ci réew mi bariwul. amul daa amul. waaw xëy na sax mën nga wax amul. ndeysaan ñi ma gën a xam li may wax. bariwul ñi ma xam-xam. ma yéwén ci loolu nag di ko jàngale. moo waral lii keroog ba nga jëlee becc def ko sër rabal laa pare si yow. Eh, gis nga yooyu sax moo gën a tuuti ci yi may def. Mm-hmm. ndax daan def yeneen. Mm-hmm. Eh, ndax ku fekk eh, pëndux meew nga def ko suuf. Mm-hmm. kooku yaakaar naa ni sax xam-xam beneen multidimensionnel la. keroog jooy naa. gis naa nga daanu leer mais jaru ko yooyu sax dama bëgg di ko def. ndax daal day ndur leneen. ndax daa am ñu ma contre léegi. te ñoo ñu ma contre. par benn benn. te xale naan na saf. ay temps nawetaan ndeysaan bu ndaa bu ndaa supporté yaa lu nga tuddee na saf ga ji ah, ah, nawetaan amatu loolu dinaa si ñëw ak yow benn ñu eh, oustaz. yaa ngi bëgg a fekk kii sama kii nag tam <laughs> bi may fubal la. dinaa fa ñëw dinaa fa ñëw il faut ñuy baax xale yi di ko xam. oustaz. woy ñett la. woy dafa am. woyantu dafa am. waaye woyandoo dafa am. waaye daa am ñoo xam kenn woyut woylu wunu woyandoo wunu lu dul jàpp si woy yi. di woy lu leen neex oustaz. waaw kii lu mu woy mooy na bagage yi dugg lan moo différence entre woy démb ak woy tey teggin ba amoon sa woy démb amul sa woy tey lan la. qu'est-ce que euh, c'est fait. oustaz génnaat nga fu baax xam nga wayu démb ak wayu tey ndeysaan sànq bi ngay ñëw yaa ngi tudd koo xam ni. wayam moom lañ tuddee la parolier. vraiment mu nekk ku mën a way. muy El Hadj Ndiaga Mbaye mën waayam foo ko natt weesu na ko mais man léegi dama xamul xale yi dañu réer bu fekkente ni bii amatuñ lu ñu way wala xamatuñ ko vraiment nañu arrêté mais ay na bagage yi dugg na bagage yi dugg xam nga loolu. nu koy feccee moo ñaaw. waaw parce que dalay wan tëyeex bi. Mhm. dala koy wan carrément mu wan ni la lii la bëgg a wax. nee na bagage yi xam na dugg ni la yow gu mbay. na bagage yi dugg yenn saa ñu ne njaay na bagage yi dugg. xam nga yooyu sa di catastrophe yoo xam ne mu ngi raam. Mhm. te ci ñag bi la jëm. ay filfilaale. <laughs> oustaz am na koo xam ne moom respecté wul jaamu yàlla c'est respecté wul Sénégal yi moom lu mu koy mooy ay wen fii la war a ne. ay ween fan la. moom kay la jëloo sa magum di ko wat ba weene jëm sa digg bopp ba ay fii la war a ne. ay bu nekk fii oustaz fan lañ ne. xanaa ci digg ginnaaw xanaa. déedéet. non pour wax la xam nga ñoom euh, li ma la wax sànq ay ween bu nekkul fii xëy na ci ay tànk la war a nekk boog wala ci ay loxo ku ne xam na ni ween fii la war a ne loolu jarul du question mais boo ko wayee euh, du am solo trop ay ween fii la war a ne <laughs> ak ni ween mel. gis euh, nga ni ween baaxee. yooyu yëpp daal jarul ay cër la yoo xam ni. oustaz bàyyi balaa sama xel di nekk bàyyi yooyu. Euh, bàyyi mais man sax maa ngi ciy xuus <laughs> ndax yooyu nga tudd. Mhm. sama yaram mon corps court. mon corps court sama yaram a ngi daw. daam koo xam ne nag daam koo xam ne mhm. am na koo xam ne jigéen la. wax na lu ko neex de nee na xaw nga xam nga rukk laalo. Euh, xam nga. rukk laalo. <laughs> kooku bandi la. mu ni xam nga ruqulaalo foofu ritax na oustaz foofu ritax na waaye laalo ruqulaalo ke lu ritax la fay xew. ba pare ni la dafa ritax ba pare ni la ruq. ruqulaalo. <laughs> mais ñi may seetaan sax xam nañ li mu bëgg a wax. ñeme nga ma xam nga ruqulaalo. topp ma ruqulaalo. booy ñëw indaale sa satalaak sa serviette ñu dem ruqulaalo. Eh, mooy bu ngeen paree ngeen sangu ji <laughs> sama xel a ngi ci comme ni nga ko waxee <laughs> xale yi daal ay kàccoor lañ waaw mais li ma la waxoon rek ba xale yi woyeetuñu. ndax bu booy boobu taxawee naan eh, naka jaxato dina meññ te borom yëgul. Mhm. sabay yëndu ko. Mhm. dafa gàtt. as loxo dafa gàtt loxo bu guddul lu jot ko xanaa kon as la. waaw bonne question. loxo bu guddul lu mu yottu jot ko. <laughs> bonne question man sàcc la. gis nga oustaz. zaaru dina meññ te borom yëgul sa kii dina meññ te doo ko yëg loolu ku xam na ko. Mhm. am na luy meññ ci yow. te doo ko yëg. <laughs> yaakaar naa ni oustaz yow daal saay saay nga nekkati. Eh, yaa ma gën a doon saay saay ndax yaa ma koy laaj. Eh, eh, mais man li fi ñëw rek lay tontu. jërëjëf li fi ñëw lay tontu. leer na yooyu tontu la waaye oustaz nag si ñàkk wuy wooy gi nag. moo war a si seetu ren gi. Sénégal yëpp am si maam góor yaakaar maam góor jàpp datam annoncé ko fépp waaye maam góor de boo bëggee dégg daa dëgg oustaz. Hmm. boo wàññee rasaam yi nu mu toll. public bu fa nekk noonu la toll. <laughs> bàyyi li ngay wax te ticket bi 1000 francs la woon oustaz. kenn ñëwul 40 personnes dafa nekk ba mu encaissé 40 mille la te dégg naa fu mu toll nii kii mu ngi koy topp fay ko xaalisam mooy DJ bi bu ko dem animé. oh maam góor li ko del kon du euh, du jàmm. ndax ku euh, ki taxawoon ni yaa yaa ngi Youssou Ndour la leen di méngale. ci way mm-hmm. boo demee nga ni da ngay tëgg te kenn ñëwul. Mm-hmm. kooku war ngaa xulaat sa bopp. oustaz loolu ñàkk bayre la wala ñàkk mën a woy lan la lan la. Eh, dafa am ñaar. xam nga nit ki dina mën a woy ñu ni mën na woy. Mhm. baat ba neex na. Mhm. mais la muy wax moo convaincre nit ñi. Mhm. la muy wax moo amul solo. baat bu neex rek wayul. ndax man bu dee baat bu neex kenn dàquma ko. yow mi neex nga baat oustaz. sama baat comme lem buñ suukar laa la wax. su ma yëkkati woon tey benn benn benn benn benn benn benn way boo xam ne eh, eh, way la ko. sa yaram day daw. kan moo ko way Eh, boo xam ni mooy naa jël benn woyu Ndiaga mbay woy ko da ngay yaakaar ni sax eh, ma dàq baat sax Ndiaga Mbaye oustaz man damay bëgg yenn saa bu ñu toogee fii nga woon ñii di la seetaan nga ne la ñëw mënoo waxtaan rek mën nga woy am nga leneen loo xam ne mën nga ko eh, xam nga waaw moom lañ ma gën a xamee xam ne yow talent nga ndeysaan dinaa ci ñëw yow Bercy di def nii yow war nga faa dem wane sa talent te loo ci xamul mooy Youssou mës ta def Bercy déggul ak man ci wàllu musique hmm. daf may woo téléphone ni ma ko oustaz ma ni naam Youssou mu ni ma bersi nangam sangam morceau bi bëgg naa ko fa way. ma ne ko boo ko defee nii laax ci lii cafaxal ci lii. Euh, yaa koy harmoniser. may wax Youssou Ndour ak may seetaan. yaa koy harmoniser. ci dama koy teg ci code ak heure ak temps. ndax Youssou bu la yëgee ci yëgatee ci kaw seenam teg la ci. bu amul sens loolu doo waay xam nga lu tax. Hmm. ndeysaan ku weddi laa jël euh, waykat yi am na yu waykat yu ma fi yóbbu da lay teg ci kaw bersi bi. Hmm. ngay jaabante va et mais am na yuuxam bu mu lay yuux da ngay taxaw toog. ndeysaan. loolu yu waykat yu bëri xam na li ma bëgg a wax. waaw waaw dégg naa par dimension mii waaye mooy kawe. jërëjëf man moom ñoo tolloo benn niveau pour waaye. jërëjëf baat bu neex moom. Mhm. vraiment yàlla may na ma ko. maam góor moom boo bëggee dégg dëgg na travail bi baat bi moo diis moom hip hopeur la woon danoom rap. waaw xam nga dama ci hip euh, bi. boo bëggee dégg dëgg. xam nga yee yeew dem hip hop bi. parents yi ñi mu nekkal ñoo lay ñoo lay ñoo lay ñoo lay dugal. dañ lay rus ba duñ la wax dëgg. Mhm. maam góor dañ ko waroon jox ndékki mu ndékki. Mhm. jox ko añ joxal defar ko reer bu neex Fatou Thiam ndeysaan soxnaam soosu. Mhm. ni ko maam mu ni naam mu ni ko baal. bàyyil baal. les les les tombé. les lem dalax. les bàyyil ndax mënoo. xam nga mën def dara nekku ci mais jéem tële bàyyi dara newu ci. ndax ku mënta feesal Cissé te ñëpp ñëw feesal ko. mënoo faa def trente personnes. yu ma bàyyi waaye bul wax feesal quarante personnes daa mën a feesal Cissé. dégg naa indaal na liiram liiram bay trente cinq trente six. am na liir bu ndaw bu mu ndalee dégg naa gars yi di ko wax. tàggatoo liir bi mooy 36eem. tàggoo tàggoo vraiment maam góor baal man maa la ko wax oustaz mooy la nga ba. bàyyil bàyyil way yi. ku la bëgg lii la lay wax bàyyil. maam góor baal. laisse tomber. laisse tomber mënoo. conseil la mooy idée bu baax bi. Euh, bu ma lay jox nag fii laa koy mujj waxee yow bàyyil musique. jërëjëf tàggatoo bàyyil musique. maam góor tàggatoo oustaz lu mu amoon si cërale woon si waxtu jàpp dina ma mere ndeysaan. mais na ba sa sox sa jëkkër ji mënul euh, su mënoon toj fii wala nga way xale bi jànk bi lalal naa la boo amee dërëm teg ci bu amul dërëm teg ci. bu oustaz bul ko lu wax mu bàyyi. Eh. bu bàyyiwul na dem rabi. rab borom baat bi diis lan soxla na dem rabi. non fulawam bu rabee. na dem bamba ji faal na dellu bamba ji faal na woowaat waa bamba ji faal ñu ñëw mu waat groupe bi ñu woyaat seen siree xaw ma siree biir kenn xam oustaz tàggoon. Eh, di la gërëm di gërëm internet di gërëm techniciens yi nii àndal. Mhm. Eh, di gërëm ñi nga xam ne ñoo safoo tontu bataaxal. vraiment suñu xarit yi fu la ñu nit di di ñu félicité di ñu encourager te loolu dafa am solo ci liggéey vraiment ñu ngi leen di gërëm. Eh, di leen sant bu baax a baax. oustaz 4G kontaan na ci yéen. def ñaar na yàlla kontaan. <coughs> cal njaate cal njaate jaan ga mu loxo du ko dindi rëkk rey na siñeel waaye loxo mucc ku bëgg a yóotu ndëgg day dëgër ku bëgg a ràbb tàlli ku bugg ku la duma da ngay tooñ ko la man monsieur si jeey Dakar sa béngal ga jaaga mbol si nox ndu waraan ture borom ngeen moom leget mun na tëb waaye fu ma koy jaaxal